وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخير قدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي جولي في تويب بوكي طالبي في تويب نيو لين دي نيو دي تكنيو بي تي شيخ عبد الاحد مبكي كيم سيرن مبكي مدينه مي خامسني موي كليفه جتاي بي تاي جي di ñaan mu yeggaleen ko ci sëriñam juróom sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke mi nga xam ne si ni moo fi nekkal Cheikh Mamadou Moustapha ñuy ñaan mu yàgg lool waaye mu yeggale ko ci mboolem jëwriñ yi nga xam ne si ni ñooy jëwriñi Daarul Xuddoos ginnaaw bu nuyoo ki nga xam si moo fi nekkal sëriñ Touba di Cheikh Mamadou Mountakha Mbàkke ñu ñaan yàlla dëgëral ko te yàggal ko fi lool ñu ñaan nuyoo boobu mu yeggal nañ ko ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina waaye yeggale ko ci sëriñ Abdourahmane Mbacke mi nga xam si ma fi nekkal Gaynde Fatma te bis bii ñu miinoon ko ci lool mu yàgg ñu cee ànd ak ñun. ñu ngi nuyuwaale ki nga xam ne si mooy sunu wasila ci sëriñ Touba muy seex Moustapha mu sëriñ Mouhamed Mbacke ginnaaw loolu ñuy nuyu sëriñ Ahmad Diagne mi nga xam ne si nii. moo jiite fédération nihmatu rabbil alamina bii nga xam ne si mooy njabootu Cheikh ma Moustapha Al Karim bi nekk fii ci Touba Italie mel ne bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañ mboolem section yi yëpp waaye lu jiitu loolu ñu ngi nuyu ki nga xam ne si nii moo taxawal diine yi ñëpp moo leen fa représenté fii ci kër Serigne Touba gi muy Serigne Fallou Mbacké ñu ngi koy nuyu di ko siyaare bi baax a baax di ko ñaanal. jataay bi ak liggéey bi nga xam ne si mi ngi koy def fii ci kër gi yàlla gën ko kàttanal may ko wér may ko fan bu gudd mu làq ci ngërëmal yàlla làq ci ngërëmal sëñ Touba te ñaan di ko ak moom mu mel ni kon ni ko Cheikh Moustapha bu sa waxee rek thème bi ñu war a waxtaane mooy sëriñ Touba ak julli wala yoonu murit ak julli bu ñu waxee loolu nag kiy diglu moom mooy ki nga xam si ni moo koy méngale ndax ci biir loolu liggéeyam Cheikh Mamadou Moustapha la ñuy indi xam bu ñu waxee ba noppi rek kii diglu moom mooy xam nan la sëriñ Tuubaa fonk julli waaye yoonu murit ban ban position la am ci julli kon mën nañ ne Cheikh Mamadou Moustapha la ñuy waxtaan kon ngir waxtaan nit nag dana baax nga wax tuuti ci fam bokk ak maanaam fam gane jamono fam jaar waaye ci gàttal rek ndax xam naa ne ñu bari moom xëy na loolu mën na leen bañ a yitteel waaye waxtaan moo laaj loolu munoo jékki-jékki rek ne diw nangam la def waaye da nga wax diw moom mooy kan. mel ni kon bu ñu doon laaj Cheikh Mouhamadoul Moustapha ci askan dañuy mën a wax ne kenn mënu ko koccel ci genn wàll ndax niñ ko xame yàlla buy tànn ku muy liggéeyloo fokk mu seetal ko ci wàll yépp ba kenn du ko mën a koccel ci dara ndax dafa fiir bëggul kenn sikkal ko ci genn wàll ne moom di buddutoon ak nàngam kon loolu moo tax Cheikh Mouhamadoul Moustapha yàlla tànnal ko ay wajur yu baax yoo xam ne si ñëpp naka jekk ci diine ak ngor lañ leen xamoon ñu mën ko féetale ci ñetti wàll kon muy mbàkke ak kokki ak ndaam ci ñett wàll yooyu la bokkoon ci ñetti néeg yooyu tax bu ñu xoolee dañuy gis ne saaxewar Fatma Diop moo jël soxna suñuy wax soxna yàlla ku xub yox soxna yàlla xujja kumba sëy am ca soxna yàlla moom ñu ngi dëkkoon maa doomi soxna sëriñ Ali Demba Sanaba Gay la dëkk ndaam biñ ko joxee saaxew farm mom mo ci am ahmadu yam yalla ak yalla amin ta yalla ñu jox ko njaga isa njaga isa job ku nek xam ko muy doomi mëdu fa xujj do di doomi sëñ maxtaar ndumbe mi sancoon kokki kon sëñ njaga isa jey surtout maxtaar ndumbe la waye siw na lol ci ñaan kokki njaga isa jey da ko yeesalaat waye mamam jooju di maxtaar ndumbe moko ko nga xam ne touba neena na kum jamonoonteel ci tundu njaamuru moo la gën kon kooku maam la ci Cheikh Mamadou Moustapha aminti yàlla moom lañ jox kon njaga isa jéy mu am ca xëri maam ak pend buya ak marema jóob ak ndaak jóob soxna xëri maam moomu moom lañ jox tafsir maxtar bintaloo mu am ca amintaloo xëri maam ak antaloo ak aali xëri maam ak mbayloo xarimaam ak amintaloo xarimaam moom laa wax léegi soxna amintaloo xarimaam moomu moom lañ jox seexul xadim mu am ci seex Muhammadul Moustapha ak seex Muhammadul Lamine kon loolu mooy askanu seex Muhammadul Moustapha nga xam ne boo ko toppee kon ci ndaam ak ci kokki xam ko sëñ Moussa Ka waxee lu jiitu daam it amoon nañu jaloore maanaam amoon nañu jaloore door a xam daam lu jiitu sëñ Tuubaa kon naka jekk ci mbaax ak ngor lañ leen xamoon kon côté Mbàkke gi moom doy na sëkk rek ne seexul xadim mooy sa wayjur kon kooku mooy Cheikh Mamadou Moustapha ci wàllum askanam mu ganee jamono ci Darou Salaam dëkk boobu nga xam ne si moom la Serigne Touba njëkk a sañc nga xam ne ku dégg tur bi rek da nga xam ne sëñ bi sonnoon na lool ndax dañ ko xamee bi Maamor ant Sali wàcce bi liggéey Mbàkke Kajoor fa la woote yoonu murit ñu bari wuy su ko waaye la ëpp yi dem niñ ko xamee ab université la boo xam ne si ni bokk na ci université yi gënoon a mag ci Sénégal wala sax jamono moo gënoon a mag ci Sénégal mu wuuteeg lool niñ koy waxee léegi actualité ne Maamor Anta Sali amutoon jot ba ak njabootam da leen sàggane woon kon université bi gënoon rëy ci Sénégal jamono yooyu mooy Maamor Anta Sali ña fa nekkoon ñëpp doon jàng nga xam ne fenn fenn lañ jóge woon ci tundi Sénégal yëpp ba Sëñ Tuubaa wootee yoonu murit ñenn ñi joxe seen bopp ñi ca des dellu ña fa ñëwoon ñëpp kon jàngaleen fa indi waaye bu jàggeen dañ faa ñëwoon ngir seet Sëriñ Tuubaa waaye niñ ko xamee booba xamuñ woon yoonu murit ñu ko sonal ko xatal ko mu génn mbàkke na naa dellu sama dëkku maam ndax ma am jàmm mu dem mbàkke bawal gi nga xam ne si ni maam ma ko sañcoon waaye yaakaar naa ne mbàkke bawal bu ñuy wax yoonu murit mooy fi gën a metti nag ci yoonu murit yépp nag ndax nañ ko xamee seen i kër lañ daa lakk di leen génne di leen def loolu ne waaye su ñëwee su ñëwee ci seen Touba mu dalal leen ne leen saxaaba yi dañoo seen bàyyi ci diine te leen lu nekk def na leen ko kon na ngeen muñ waaye ba mu mettee ba metti kon ci la dem nag sanc Daaru Salaam tudde ko këru jàmmalaa bi kon ku nekk xam na ne kon maanaam këru jàmm kon xam na ne jàmm ma tax mu jóge Mbàkke dem sañce Daaru Salaam kon foofu la Cheikh Mamadou Moustapha gane jamono moo rakkam ji nga xam ne si ni damay wax ne koy waxtaan ci ñoom rek yaa ngi waxtaane ka ca moo xam nga tudd ko moo xam nga bañ ko tudd mooy Cheikh Mamadou Fadil sooy waxtaan sëñ Moustapha Cheikh Mamadou Moustapha yaa ngi waxtaane sëñ ndax lépp ñoo ko bokk juróom-ñaari weer rek la ko Cheikh Mamadou Moustapha rawe la ko magee kon ci dëkk boobu Daaru Salaam fi nekk jamono ci ñetti fan ci weeru tamxarit donte ay wuute wuute am na ci ci 1306 ci ati gàttaay gi dëppoog 1988 li tax ne ñetti fan maa ngi ko sukkandiku ci way Moussa Ka yi nga xam ni bari na manam historien historien la bari ci yoon mooy da koy wax ndax moo ne diglul ma wax la yow atum juddoom nga say nopp xaama sin taarix ba daaru salaam yow ma xaasooraa moo doon nganam nga booba lamiraa kon yow ma xaasooraa moo doon bisum ngan nga mooy bisub tudd ba kon kon ñetti fan bu bis bi dellusee moo doon fukki fan nga xam ne mooy xaasooraa gi nga xam ne ba léegi ku fi nekkal Cheikh Mamadou Moustapha waa daaru xuddos gépp ne àndandoo di la siyaare ji ci daaru xuddos kon ñetti fan ci weeru tamxarit ci la gane jamono ci xaama wa 1306 ci atti gàddaa gi dëppoog 1988 bala may sori ci leral delluwaay yi nga xam ne ni fi lay jëlee samay wax ndax kam jamono lañ nekkit looy wax war nga koo teg fenn ba buñ ne la foo ko jëlee nga ne barab sàngam li ci ëpp maa ngi ko jëlee kon ci téere bu ñuy wax asayxu Mouhamadou Moustapha na moo sa jul am sal tarbiya bu lajnatu tarbiya wa saqaafe bu daal xuddoos génne ko Cheikh Ahmadou Moukhtar mi ko fi nekkal fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko signé wax ne téere bii day daay or lañ ko waroon a ndax wér gu mu wér kon li ëpp ci li may waxtaane foofu laa ko jëlee sëñ Mahmoud Lamine Diop Dagana ci benn nub sa bu mu defoon boo xam ne si dajee def taarixu jumay Touba ak it bàyyi nub sa boo xam ne si sëñ Maxtaar Bintaloo moom itam moo ko def ak lenn ci way sëñ Moussa bi kon samay delluwaay mooy yooyu moo xam wax naa ne diw wax wala waxut diw waxut waaye kon bu ma ci wax ci yooyu laa ko jëlee kon bi mu defee noonu bi mu matee dal jàngit niñ ko xamee way juram moo ko daal jàng ci loxol boppam moo ko rakkam ci ma waxoon léegi moo ko Cheikh Mamadou Fadil ak sëñ Omar Mbacke Gelongal ñoom ñett la sëñ Touba dalandoo ci benn bis ci ron dimbu ci kër sëñ Sohaibou bu ngi tey ñu ko daa wax daaru naar mu tudd daaru rahman foofu la daa dalal naar yi nga xam ne këru xam-xam la ko defoon nga xam ne loolu sax topp na kër gi ndax bi sëñ Sohaibou bu dikkee nga xam ne moo wuutu njabootu sëñ Touba gi ci alxuraan yaakaar naa ne néewaana mbàkke mbàkke bu fa jaarul wala ci maggi taalibe yi ku fa jaarul kon barke boobee moo tax kër sëñ Sohaibou ba léegi yaakaar naa ne alxuraan fa lañ koy jànge kon foofu la dale jàng sëñ Tuubaa moo leen jàngal ba sóoratu yaasin tasanteeg natt bi war a ñëw muy war a dem Jolof ànd ak Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Fallou sëñ Omar Mbacke gelongal mu jox ko sëñ Daam Abdourahmane Lo mi nga xam si moom itam waa Mbacke gépp moo leen jàngal wala boog demee foofu ay weer la def tukki bi ñëw mu daal di jëlaat sëñ Mouhamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Moustapha jox leen maam Thierno ne ko foo leen jàngale baax na bu fekkee mën naa nekk fii baax na waaye bu dul fii fu ko yàlla dogale gërëmloo naa loolu waaye nañ ko xamee foofa nag metti woon na lool ndax maam Thierno moom la sëñ Tuubaa bàyyi léppam nga xam ne naka mooy banaa droitam fu mu dem moom la ko moom la fa yabal mu doon ko xam ne si wax dëgg yàlla mën nañ ne mooy buntub yoon wi ndax ba ci njaareem sax bu sëñ Tuubaa mosaa wax dañ naan nañ xaar Thierno ba mu ñëw ba xam da koy wéyal wala da da koy dindi nga xam ne dañ mën nañ ne mooy kase yoonu murid sëñ tubaa daana wax ba noppi mu ne kii dadul nit waaye ñun ñi nit nañ def yëfi nit kon moo tax bu masaa fokk ñu nañ na ba mu ñëw waxam lu muy wax su ko mu wéy ko ñu def wax kon kooku la sëñ tubaa doy la woon ba bàyyee ko cheikh mamadou Mustafa, ak cheikh mamadou moustapha ab diir maam ceerno daal di leen jëbbala sëñ daam abdourahman lo nga xam ne moom leen jàngal bañ nga lu jiitu sëriñ tubaa dellu ci géej gi kaamil bi fekk na ko fa maam na jox na ko ndaw ba mu yóbbu ko ba sëñ Tuubaa téye ko mu jàngal leen xam-xam it mook maam Mor Jaara waroom saam jàngal leen bañ raw ci Sénégal na ko sëñ Fall daa waxe suñ baay bu baax baax ba dañoo jàngal bañ na arr mu yar ñu bañ na nër mu yee ñu bañ na jaar kon foofu lañu jànge xam-xam waaye bi sëñ Tuubaa dellu si ci géej gi xam nañ ne 1902 11 novembre 1902 la dellu si ci géej gi waaye juróom-ñaari weer rek la fi def ñu daal di ko jëlaat yóbbu ko Mauritanie ci mois de juin 1903 bi mu demee ba yegg Mauritanie maam Thierno dafa ànd ak dafa doon dem yóbbaale Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil sëñ Modou Moustapha ñaan ko ne ko sëñ Madiba Sëli mii de bu ma doon ànd ak ñun dana baax nga xam ne sëñ Madiba moom Cheikh Mamadou Moustapha moo ñaan maam Thierno ne ko na ànd ak ñoom kon ñoom ñett la maam Thierno yóbbu Mauritanie nga xam ne foofa lañ gën a yàkkale seen alliwana ci mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ne si amutoon Sénégal motax tax ku dul ñoom rek ñola raw ku yër seen mbind da nga ko xam discours yi ñu doon def ak way yi ñu doon def kon loolu moo tax ñu raw ñëpp bi sëñ bi dellusi waté Sénégal ñu yóbbu ko ceen Jolof ñu dellusi ànd ak moom foofee nag la leen tërbiya tërbiya goo xam ne si ni mboolem donga yi ñu doon def rek lu donga di def rek Cheikh Mamadou Fadil ak Cheikh Mamadou Moustapha def nañ ko foofee ci Jolof nga xam ne bu bu ñu doon doon doomi Sëriñ Tuubaa lu seex di am danañ ko am ba noppi nag doon doomi Sëriñ Tuubaa foofa it ci diggante boobu la leen doon waajal gannaaw Cheikh Mamadou Moustapha laay wax moom laay tudd waaye ni ma ko waxee woon saa yoo koy waxtaan yaa ngi waxtaane Cheikh Mamadou Fadl daanaka yónni ci biir réew mi fu mel ni Kajoor ak Bawal lépp ngir di ko waajal ndax xam ne am na responsabilité bi waajal gàllu ci kawam am na yoon woo xam ne da ko yónni mu dem Kajoor ba ñëw bi mu ñëwee mu defal ko way yii lépp doon ab tamhid boo xam ne si da ko ci defal ñaw xel waaye it mën a yor mën a yor ay responsabilités yu bari mu dégg ko ne ko laatan sa niyatan la daa kulli layaat fa innaha tajlibu afdala ayaat adim xiyaama lay duuna kasali wa bi tilaawali wa bi tilaawati fu doona sini wa farra min majaalisil xofooli innal xofoola mu kastiral kofooli wa danasal xiibati naq bi sukkoori وذكر ربك المكرم الشكور وانوي لنفسك خيورا ولمن رأيته يطلب كل زمن وفي لس يرضى إلهك الرغبي وحان سوى ما ليس يرضيه الرغبي muy wax Cheikh Mamadou Moustapha ne ko looy def daal lu mu mën di doon lu mu tuuti tuuti moom bu ca fàtte yéene ndax yéene mooy li nga xam ne si ni mooy indi ay yiw ndax jëf lu mu rëy rëy boo ca génne yéene rek du doon dara mi ngi mel ne ngay poros boros ak pusa te wëñ fasoo wëñ nga ci ginnaaw saa boo lepp ay andalo génn kon mu ne ko bul bayyi yéene ci lepp loy def bo doon jël big bi sax diko tek fi na nga ci am yéene mu ne ko nanga nga saxoo di sax di taxaw guddi ci lutu ngay tayal ndax tayal kat amul ben resultat moom nee del deel daw jataay yi nga xamne ne jota yi tayal la yi sàggan ndax sàggan amul ben manam resultat mooy li ma waxoon mu ne ko jew na bo demee ba koy def mom teru jew nang ko raxase sante yalla foo nar a jëwee rek jëlal alxuraan nga jàng ko wala xasida wala leneen nga xam ne sant yàlla ak di tudd sa boroom bi nga xam ne si mooy ku tedd ki def santaakoon ne ko del yéene sa bopp aw yiw ak képp koo xam ne seen gis nga ko mu koy sàkk ci jamono ju mën a doon kon li nga yéene sa bopp na nga ko yéene ñëpp te na nga fexe waaye ba lépp looy def rek maanaam sa xéemanteef jëmale ko ci lu yàlla gërëm loo waaye lu mu gërëm loo na ko wan ginnaaw kon yooyu ay way la yoo xam ne si ne sëñ Tuubaa moo ko defal di ki noonu la ko defaloon sëñ Fallu it yeneen way waaye ginnaaw kay tey Cheikh Mamadou Moustapha la ñu moo tax ñu wax yi Cheikh Mamadou Moustapha bokk na ci ñi nga xam ne si ñoo sabab Serigne tubaa ñëw ci biir réew mi maanaam ñëw njaareem donte am nay sabab yeneen waaye bokk na ci ñi nga xam ne si doon nañ ko sàkk ndax booba sëñ baa ngi jublu ci mag te Jolof isolé na woon te booba ñëpp nga fi bëgg a ñëw donte ku fa daa dem da nga daa ñaan autorisation ñu leen di àddukal bi di leen dogale ci yoon wi waaye Serigne tubaa fu mos a nekk jaral na ko nit ñi ba dañ fa daa dem ba loola soti kon ci xaamal lassasin nim ko waxe na masiri la da jurbel rama masiri la jurbel la da lassasin law xaayoon sirama fi sayri maram kon mu don ci 1330 ciati gaday gi dëppoog 1912 ciati jant bi bi señ bi deme ndiarem kon ñu daldi and ak mom dem fa señ bi nekkuton ci bu khatul baraka gi tay waye ma nga won ci sawu dekk ba def na lu jégué am at doora fii ci Buqaatul Mubaaraka sañ ñu jox ko suuf soosu mu sañ ci ko tudd ko Buqaatul Mubaaraka bi mu ñëwee foofu nag la suñ Moodu mu ak suñ Fallu dem Touba la leen yebal kon ñoom ñu del dem Touba waaye nga xam ne kon diggante bee yëpp moom dañ moo taxawoon ak suñ Touba muy Mauritanie ak Thièyeen jolo ak at mu njëkkum Njaaréem ci booba la ñu door a dem Touba am na lu ma jël maanaam ci Jolof maanaam ci 1327 dëppoo 1909 lu jiitu mu ñëw Njaaréem kon. benn bis daawoo ñetti doomi sëñ daam Abdourahmane Lo nga xam ne soxna Aminta Mbàkke bi boo ko maam Thierno Ndeye Baye moo leen jur woo leen ñu ñëw Jolof mu ganal leen juróom-ñetti fan daal leen woo ñëw muy leen bi ma ñibbisee ci géej géej fekkoon ngeen ma daru manaam waaye da jataa dafa gàtt ba xàmmeewu ma leen daal ne kan moo mag ci yéen ñu ne ko soxna Fatou Lo mii de moo ci mag mooy nañ ko doon nañ nañ ko dencal sëriñ Omar Fall Mbàkke di doomi Sëñ Mbàkke Kajoor nga xam ne way jur la ci Sëriñ Tuubaa ndax rakki Maam Mor Anta Sali nga xam ne ma Mor Anta Sali moom la bàyyee Mbàkke Kajoor bu mu fa jógee mu daal ne ku ci topp ñu ne ko soxna Aminta Lo bi moo ci topp muy nañ ko dencal Mouhamadou Moustapha daal ne ku ci topp ñu ko Aïssatou Lo mii muy nañ ko dencal Cheikh Mouhamadoul Fadil nga xam ne ñett yooyu la joxee noo ci benn bis daal di joxe juróom benn téeméeri dërëm ne mooy seenu can kon muy kenn ku ne ñaar téeméeri dërëm kon boo bale leen tàmbali jox ay responsabilité dencal leen soxna ndax nit saa yoo ko dencal leen soxna rek kon léegi war naa tàmbali di jël ay responsabilité kon noonu moo ko wax kon bi sëñ bi ñëwee njaare ñu ànd ak moom ba def fi am at mu daal leen yebal Touba ñu dem Touba bi mu demee Touba maam noonu la sëñ Touba ne na nga dem Touba boo demee nga yeesal yeesalaat kër ga boo demee la féete woon kaw na féete suuf la féete woon suuf féete kaw am na jàll nañ ko jàllal waaye na nga ko ak maanaam ay maanaam weñ ndax Sëñ Tuubaa loolu la ñu wax waaye seng lañ ko lañ ko mën a waxee mooy seng tey nanga ko def làkk làkk weñ la ko wax te jëlër bi suuf sa la féete woon kaw féete suuf la féete woon suuf féete kaw bañ ko waxee ñëpp ne loolu de Ceerno mënu ko am Ceerno ne leen xamu leen ma xamu leen Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa du santaan du ma sant lu ma defut te du santaan lu ñu mënul noonu la ko maam Ceerno defee dem Tuubaa jàllar bi suuf sa jënd ay seng dajale ko maanaam seng ko ba mu daj mu des lu bari mu yóbbu ko njaareem mu yebal fa Cheikh Mamadou Moustapha boole ko suñu isaa jenn ñu war faa yeesalaat ay teen ya fa nekkoon lu mel ni xaynu rëdda ak xaynu rahmati ci 1915 wala lu jiit loolu sax maanaam mu bi bi ñu ko yebalee foofu mu ànd ak maam suñu isaa jenn biñ yeesalee teen yooyu dafaa def daara tërbiye fii kuy texe nekk suñu mu Moustapha dafa fa la sos ay tërbiye daal di fay indi sëñ si la Ñaaxeen def ko fa jëwriñ ak sëñ Souleymane Guèye ak sëñ Ibrahima Diouf ak sëriñ Mbaye Ka ak sëriñ Ibrahima Touré ak sëñ Cheikh Baba Diop ak sëriñ Aliou ñoo ñu la fa indi di fa def daara yi tarbiya biñ dajee biñ demee ba ci 1915 nag la door a sos xosnul ma muy tundoodi gi ci ndigalu sëñ Touba nga xam ne sëñ Touba moo ko woo ne yaat fallu na ngeen sanc ay dëkk yoo xam ne si du sori Touba mu ne ko fallu de am na benn dëkk bu nekkoon fii sax ci ba penku ñu koy wax Ndindi nga moom Cheikh mu Moustapha moo ko wax sëñ Fallu nekkoon ku baax ki neen nañ sanc ay dak ay dëkk yu jegewul yu jege Touba nee naa ko sax falu de am na dëkk bu mu nekkoon fu ñuy wax ndindi sëñ Fallu ne ko ginnaaw loolu day génn na ci salaamiñ bu baax bii dugg ci noppam bu tedd ba du ma soppi tur bi kon tur woowu mooy wéy moom mu daal dem sanc tundóo di tudde ko xusuma ab ba mu ko sancee nag ay daara moo fa nekkoon waaye nekk daal di wut nekk ab dëkk mu daal di jël sëñ Mursi la ñaaxeen mi mu yóbbuwoon taxe indi ko fa moog sëñ mu Fall Patar ak sëñ Ousmane Samb ba mat fukki daara daaray tarbiya nga xam ne daara yooyu waa kër Cheikh Mamadou Moustapha dongay Cheikh Mamadou Moustapha yëpp fa lañ nekkoon ak dongay sëñ Basiiru nga xam ne booba mënoo xàmmee dongay sëñ Basiiru yi ak dongay sëñ Mamadou Moustapha bañ demee ba ci 1336 jàppi gàddaa gi dëppoog 1918 mu ñëw fii marché Ocass nekk tey gas fa ab teen teen ba nag yàlla dogal bëriwutoon ndox nga xam ne buñ daa wëgg dañ ko daan nasal ñi xam teen xam nañ lan mooy nasal nga xam ne da ngay toog ab diir bu nasalee nga wëgg tuuti demaat toogaat tuuti nasalaat bi mu defee noonu nag kër yu mag yëpp kenn ku ne am ku fa nekkal maanaam li ñuy wax kër suñ fa am fa kër soxna yi maanaam kenn ku ne am ku fa teewal ak guy gu mag nag nekkoon fa nga xam ne buñ daan nasal dañ fay dem di fa noppalu nekk ci kër guy ga nañ ko xamé fu ay nit di nek nit ñi dañ fa ñew di fa yaxantu di fa jaay ci la nit ñi ñewé di fa indi ay ñaayatu di fa jaay sëñ Modou Moustapha nak am ñaan bu ko Serigne Touba joxon mu dal di koy wisaare ci guuy gog xam si mo nekkoon fofu ci tenn bi Cheikh Mamadou Fadil ñewé kon mom moko ko soppi am marché tuddé ko marché hokas dan ko teug bisub aljum manam bisub aljum lañ ko ñëk a wote bokku na ci ñëpp ñëk a ay bitig bi bi marché hokas soso ku ñu wax Serigne jeng Cheikh Fall ngiig ma njoogu Diop Nguña Fall ak Mbay Jang ak ku ñu ay dara Aydara ñooñu ñoo njëkk ubbi ay bitik ci marché Ocass kon ni ma ko waxee bi bi mu ñëwee mostal am nak da mu mu def ko ab dekk ah bu ñëk ay dar la won bi ñëwee 1900 1339 ci ati gi depp ak 1920 la ko def ab dekk dal di fay def dar daaree alquran indi fi ko ñu wax suñu maxtaan alelo ngir mu fay jangale mu dal di ko jox lu ëpp ci doomi cheikh ci ak doomi mbàkke mbàkke yi ci njitu sëñ Seex Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma sëñ Mbàkke Madina ñuy ay doomam seigne Abdul Karim taw seigne Fallou bokku seigne Abdul Karim mina Aksi ak seigne Modou Mbacke di doomi seigne Omar Mbacke gelongal ak seigne Modou May doomi seigne Massamba ak seigne mustapha Diop ndiek ak seigne Baydi Ba ak seigne diogu Malick doon doomi khadim Barama cham khadim Barama cham dal di indi seigne Maxtaar Jam guyar ngir mu fay jangale xam-xam kon loolu mooy daara daara terbiya nga fee daara nga fe daaree xam-xam nga fee kon loolu moo dajale diine kon noonu la ko dem ab dëkk kon moom mu daal di dem tubaakaya ngir yokk maanaam sanc yi ci 1340 daal di jël si mbir si la ñaaxeen moom yóbbu woon Tindoo di indiwaat ko foofu 1921. ci at ma ci topp rek 1922 mu daal di jëlaat si mbir si la ñaaxeen suuf si nga xam ne si maam Cheikh Anta moo ko joxoon muy Touba ñaaxeen foofu la ko daal di yóbbu waaye ci diggante boobu nag sos na fi ay dëkk bul yéeri jàmm wi la ak kon dëkk yooyu yëpp kon ci nekk sëriñ Touba la ko sëñ Mouhamadou Moustapha sanc bi sëñ bi maanaam sëñ bi daal di koy woo ngir mu gën ko jege si ndax booba mi ngi gën di mag bi mu ñëwee njaareem mu daal di koy sancal fii ci gànnaaru kër gu mag mooy kër si Moustapha Mouhamed gi foofu moo kër Cheikh Mouhamadou Moustapha fi la ko sëñ Touba sancaloo ngir mu koy nekk nag di nekk di dox diggam ak lenn ci délégation yi nga xam ne si ni ñoo ñëw ak fu mu war a dem te mënu foon dem mu yebal fa Cheikh Mamadou Moustapha xam nga ne loolu borom responsabilité la ko jox borom xam-xam la ko jox ndax Serigne Touba ay gane xam-xam rek la daa am bari na ñu fa daa ñëw ñoo xam ne si ni xam-xam moo taxoon ñu fa doon ñëw di natt su sëñ waaye ba ñëwee dañu mujj jébbalu kon kooku ku mu leen di booleel xam na ne borom xam-xam lay doon kon loolu la def ci nekk way juram maanaam Serigne Touba ni ma ko waxee rek saa yoo waxtaan Cheikh Mamadou Moustapha yaa ngi waxtaane Serigne Mouhamadou kon ñu xam ne responsabilité bi mu a jël nag mooy bis bii tey ñuy màggal xew-xew ba ndax Serigne Touba léegi nag li ma sa nekk ak bëggam mooy dem Touba daa ko ko batale naa ko na xam ne day bis boo fexe ba yóbbu ma Touba te xat damut danaa la jalaat ci sa càmmoñ bii loo xam ne sa ndajoor du ko mën a jeexal waaye bu amul dee da ngeen ma yàkkamtee fekk si fofu it ñu bari dañ fi joom naan sëñ Touba dane woon sëñ Modou Moustapha boo ma yóbboo teb tubaab tuum tiim ma déedéet te xat damut la ko xon moy yengutu amul lim fi nek lépp ci loxoy tubaab la nek kon lu muy baña a tim ko résidence survey la nekkon lolu dafa mënta nek sax ndax sëñ Modou Moustapha mënta jël sëñ Touba yobbu ko Touba te bi yëguñ ko ndax boo ko defoon est-ce kon duñ ko ne nañ ko jëli sëñ Modou Moustapha am xelam wess na lool fokk mu jël responsabilité bopam yëgal ko tubaab bi ba xamni li amna door yobbu sëñ Touba ndax loolu moo di njàmbaar bu ko yóbbu woon dañ naan da ko sàcc waaye dafa woo commandant bi fi nekkoon jamono jooju tudd Paal ànd ak moom maanaam bi mbir mi amee suñ Seex Fa Tàkk Jóob mi ko fekke woon moo ko nettali kaset fi mbind yaa fi te nee na suñ Fa Tàkk ci bande bi na ne boobu ngi am ñaar fukki at ak ñett ku am ñaar fukki at ak ñett nag te nekk ak suñ Touba yaakaar naa loo wax waris na koo mën a diglu naa bande ba mu jeex gis naa ko ci téere ñu bind kon suñ Seex Fa Tàkk Jóob moo ko ni sëñ Modou Moustapha ba mu jógee ñaaxeen ba mu yegsee ci këram googu ba ni mu ànd ak sëñ Maxtaar Silla ak sëñ Cheikh Fatakko Diop moom ak sëñ Cheikh Diop xëri jang bañ dem fekk sëñ Touba nam mel xëy na wati jotaay bi du ko laaj waaye yaatu na gën naa yaatu loolu waaye noonu la amee woon demee ba yegg sëñ Cheikh Fatakko Diop la ne ko yeggal sëñ Modou Moustapha moo ne sëñ Cheikh Fatakko Diop yeggal ndax lu mel nii moo taxoon moo la doon wax ne fu ma nekk man nga ma faa fekk sëñ Cheikh Fatakko Diop ak sëñ maxtaar si la ñoo ànd ñoom ñaar suñ maxtaar si la yor làmp bi ñu dem ba yegg ci néeg bi sëñ bi nekk suñ seex fatta ko jóob laaj ko làmp bi nungu koo jox ñoom ñëpp ñu arrièreaat waaye bi ko suñ Modou Moustapha laajee làmp bi nag sëñu ko ko bañ a jox mu daal di ko koy jox suñ Modou Moustapha dem ba fekk ko ci néeg bi mu jekk lool lépp ay téere wër ko mu nekk ci basan bu muxtaare suñ